mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon ci ñaareelu édition bi nga xam ne daara yi Serigne Souhaibou ñu ngi ko doon amal fii ci place de la musique bu Polo Solo ñu taxaw ak nag euh, sëñ daara bi muy Serigne Modou Ngom euh, sëñ Modou kon ban message ngay jox euh, waajur yi. Mm-hmm. salaamaaleykum wa rahmatulah noo ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di sant waa Touba Vision ci njiital sëñ Wadane Diop ci taxawaay bi waa Touba Pontevico itam ci taxawaay bi oustaz yeeg mboolem borom xam-xam yi nekk ci corps yëpp. di sant yàlla suñu borom baax bi mu ñëwee fekkee bis bi ba defal ko nii ñu ko defee ba ba mu àgg ci ni mu àggee ñu ñaan yàlla suñu borom mu defal ci ndimbal ak tawféex te barkeel ko barkab Serigne Touba di sant itam mboolem ñi nga xam ñoom lañu àjjal àndal liggéey bi muy daare Serigne Souhaïbou ji nekk fii ci Touba Palasolo muy waajur yi ak tu tànk yi taxawaay bi rafet na lool xanaa di dénkaat waajur yi ñu gën a góorgóorlu te gën a sàmmat liggéey bi te gën ko fonkaat bu baax a baax baax te seen doom yi ñu fexe ci e, njëkkanteeg ñoom ci tubaab yi ngir ñu mën a mën a mën a mën a sàmm seen diine mën a itam rawale seen diine waaye ñi nga am mbégte mu rëy sëñ Wadane ci taxawaay bi nga xam taxaw ngeen ko ci ànd ci suñ ànd ak ñun nekk ak ñun suñu wet liggéey bi ba ñu àggale ko ci jàmm ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu dëggal leen tafay leen ay yiw ak suñ Tuubaa jërëjëf sëñ Modou kon ñoo ngi lay sant baax a baax di la gërëm di sant mbokki taaliba yëpp waaw ah, jërëjëf jërëjëf mbokk ñoo ngi ci fii ci Palace ci euh, place de la musique bi nga xam ne fi lañ doon defee tare bi euh, daaray Serigne Souhaïbou ren euh, nekk ñaareelu audition bi ñu taxaw ak euh, Serigne Abdoul Aziz Mboup nekk responsable ci parent d'élèves yi kon sëñ Abdoul Aziz kon jeexal nañ tare bi ak jàmm ban message ngay laa sa parents yi aouzu billahi mina sheytan rajim bismillahi rahmani rahim wasalatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah xanaa di woote woote boo xamante ni yàlla boo ñu ci jiitu moo woo ñëpp ci waa wa atasimu xablillahi jameen wala tafarraqu rawatina nag ñu ràbbe ko alxuraanul karim ba nga xamante ni nii euh, daanaka ñun suñu wàll xëy na wéy na wala wéy jur yi def nañ ci ñun li ñu war a def ba pare tabaarakallaahu ndax dañ fi indaale suñu diinee kon nag la way jure defoon ci ñun bëgg nañ ko ci seen i sët kon ñu war a tënk njaboot gi ci alxuraanul karim tënk leen ci daara ji ndax itam euh, ku bëgg a mucc da ngay des ci gétt gi waaw rab bu bëggee mucc ci till dafay des ci gétt gi te gétt gi mooy daara ji kon nag ñoo ngi ciy soññ way jur yëpp di ci soññ bokki jullit yëpp ngir ñu tënku ci daara yi dundal daara ji te jox xorma sëriñ daara yi tabaarakallaahu la ñuy daj ca nasaraan ya ci tubaab yi ci seen école ya bu ñu dajee lu ni toll ci daara yi danañ sàmmal xale yi seen diine sàmmal leen seen ngor tawaar toll rek mu ci am solo waaw ñi ko woo ñëpp di ci ñëpp di sant bu baax a baax a baax ci teraanga xew yi ñu yàlla defal ci tàkkusaan ngoonu tey gii arxuraan dund na mbokk gi dund na tabaarakallaahu mag ña ca Sénégal seen xol sedd na ndax lii rek lañu seen ginnaaw rek ma leen yitteeloon ba ñuy liggéey liggéey lu ñu seen bopp waaye dañu bëggoon ba keroog buftu bi di war di eh, ñuy wal buftu bi njaboot gi tënku ci siraatal mustaqim tënku ci diine loolu tabaarakallaahu loolu daal moo doon yi tabaarakallaahu jërëjëf jërëjëf sëñ Abdoul Aziz ñoo ngi lay sant baax a baax di la gërëm jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu mbokk yëpp di sant bu baax di gërëm tey jii nag ñu ngi fii ci solo ci daara Serigne Soyen bu ji nga xam ne ñoo doon def tey jii talib alxuraan te Serigne Modou Ngom mii di nga xam ne mooy jëwri ni daara ji nga xam ne mooy Serigne daara yi wax dëgg yàlla di def liggéey bu am solo ci daara ji yàlla dogal nag soxna yi nga xam ne yàlla dogal na ne ñoom ñooy waajur yi xatu tànk yi amoon xéewal goo xam ne dañ ko doon jox sëñ Modou Ngom di ko ko sant di ko gërëm te di la ñaanal sëñ Modou yàlla na yàlla gën a woyofal yan bi yàlla na la yàlla sàmm yàlla na sàmm njaboot gi yàlla sàmm waajur yëpp nag sàmm xale yi ba ñun ñëpp ñu fekke seen njariñ ci barakatu rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf bismillah am na leneen luñ fa war a joxe. mi ngi nii muy ñi nga xam ne ñoo koy jàppale si liggéey bi sëñ Modou dafa am ñoo xam ne ñoom lay àndal liggéey bi. Ibulaay ah, ndax ñoom amuñu lu dul benn bés muy samedi samedi sax sëñ Modou da koy liggéey. war xam nga ni dimanche sax la war a noppal daal jox ko yàlla taxaw sa moom la jël jox ko yàlla. taxawal ñu si suñu njaboot gi dugal alxuraan si seeni i xol bon nag am nañu ngërë ñu ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaay bi mu taxaw si dëkk bi ndax gis nañ taxawaayam lool ndax dimaas kese la am dimanche bi mu am moom kese moom lay jël ubbi ko daaraam di si jàngal xale yi ñu koy ñu koy sant di sant mbooloo mi ñu àndal liggéey bi yëpp sëñ Abdou Aziz Mbuub sëñ Mbay Saw ak euh, sëñ Ibrahima ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah regala yi ñu yor bi waaw bii bii sëñ Iboulaye mi nga xam ne moom mooy koy jàppale si daar ji dimaas bu jot moom moom moom regalo bi waaw sëñ Amar tëyal ko indi bi si des indi bi si des Saw moo ko moo ko moom moom mi nga xam ni ñoo ñoo ne si daara ji bàyyi seen yitte yëpp amuñu dudul dimanche sacrifié ko pour doom ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah am sànni di wax euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñi sant ñëpp ci taxawaay bi ñuy jéggalu bu baax ndax euh, euh, temps bi moo ñu ko mayul ndax bu ñu sañoon mbooloo mépp dinañ fekkee lii tey sëñ Modou ñu ngi lay sant sant goo xam ne am na commencement waaye amul yenum kaay ñu ngi ñaan suñu borom daal kattanal la dëgëral la suñu borom bàyyi la fi nga dund ba fekkee lépp euh, li nga nimse si su njaboot gi yàlla suñu borom barkee lépp ñu dund ba lay jëndal ay oto di la jëndal ay billet màkka ñun ñëpp ñu fekkee di ko defal seen papa yi surtout ñoom seen papa yi wax dëgg fa ne yàlla jàmbaar lañ li ñu naan dooley jigéen góor doole saxaar raay ndax ñoom ñoo ñu dooleel tey bu ñu fi toogee ba ñuy jël suñu doom di leen jàngal ba seeni araf dugg ginnaaw yàlla ñoom la kon ñi ngi ñaanal ñëpp képp koo xamante ni waajur nga daal yàlla sunu borom guddal sa fan wéral sa cër nga dund ba fekke sa njariñ njaboot yaay yi daal moom ñi ngi kontaan di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax jërë ngeen jëf macha allah soxna aj asalaamaaleykum maa leen nuyu yéen ñëpp sëñ Modou daa yow daa ñu lay ñaana gudd fan ak wér yàlla nga dund ba fekkee njëriñu njaboot gi ñëpp si barke Seydina Mohamed ñu ngi lay sant di la gërëm waa kay jërëjëf xadi Cissé asalaamaaleykum soxna yu baax yi fi taxaw yi ak kilifa yi nuyu naa leen di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen may gërëm yaayi daara yi ñuy jël seen doom yi bëgg ñu xam seen culture ak seen diine di ci teg Modou Ngom mi nga xam ne kenn naamut payam nag Modou Ngom moom na la waaw Modou Ngom moom nu ko ñaanal wér yaram fan la gudd ndax suñ doom yi nga xam ne ñu ngi Europe ci tubaab yi mu fexe ba dugal alxuraan ci ñoom wax dëgg yàlla Modou Ngom kenn amul payam noo ngi leen di gërëm nag yéen ñëpp yi ci gannaawam di ko jàppale yeen ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen wax dëgg yàlla lii yan na fi sax ba sun doom yu dund ba tari alxuraan lii la nuy ñaan asalaamaaleykum wa rahmatullah waa kay baax na sant nañ leen jërëjëf bi ma demee màkk li ma première xalaat Modou Ngom kaamil laa ko indi wóor na yàlla kaamil laa ko indi sari wallaay jërëjëf Cissé jërëjëf Cissé ñi ngi lay siyaar bu baax di sant ñi ngi sant nag bu baax euh, soxna yi ak euh, seen taxawaay bu rëy bi ñu ak jëf ju rëy yi ñu jëfati ndax yàgg nañ ko yàgg nañ ma koo defal gis ngeen ko nii teraanga yi ñu m defalaatal defoon nañ ko defaat nañ ko encore soxna yi maa ngi leen di sant baax soxna Yunus nag ñu santal soxna yi baax a baax a baax ndax lii ñu def nii mënoon nañ caa mënoon nañ cee bañ a yegg waaye da ngeen bëgg lu baax rek ak xeer moo tax ngeen jëfaat lii kon yal na yàlla barkeel leen te barkeel seen njaboot li ñu bëgg ci xale yi ñun ñëpp xam nañ ko yal na yàlla defal ñu ko ñun ñëpp ci barkeb Sëriñ Tuubaa barkeb Alxuraan Karim bëgg naa lool ci kàddu yi bëgg naa ci taxawaay bi sëñ sëñ Balaay mii ñu sargal ba léegi tey wut guddeeg bëccëg muy taw muy naaj benn yoon bu muy rajo daara ji amut lu mu mën a nekk lu mu métti métti métti bu daaje woote gis ko ci wetam muy jonkonte ay ay yu bëree bare bëree bëri waaye mu ci liggéeyal yàlla rek moo tax ñu xalaat ko sargal ko sargal bii ci duru daaray alxuraanul karim pala solo ngir mu nekk seede ci digganteem ak yàlla suñu borom mi muy liggéeyal ci alxuraan di ñaan yàlla mu sàmm ko dëgëral ko fay ko aw yiw mu dëgëral ko lool yàggal aw taxawaayam guddal aw fanam kenn mënu koo fay ndax ku sonn la ci donga yi ibulaay ku sonn la daara ji ñëpp mën nañ koo seede kon ñi ngi lay sant baax sëñ Ibrahima di la gërëm di la ñaan yàlla suñu borom saxaw la ak suñu tubaab jërëjëf barakallah jërëjëf jërëjëf xam naa ñun ñu am ci tuuti témoignage rek ndax euh, jëmm ji di sëñ moodu ngoom dañuy ànd ñun ñëpp rek ñaanal ko ci barakatu rasulullah barki seexul xadim suñ borom sàmm ko sàmm njaboot gi yëpp ndax liggéey bii mu nekk euh, yàgg na ci ndax su ma juumul léegi mu jege fukki at la waaw 2009 ba léegi mu nekk ci te tàyyiwul ci kër la ko doon def ba yàlla dogal tey mu am daara joo xam ne fa la koy defee mhm. kon ñu doolee sant yàlla bu baax a baax man li may dolli ci wax ji rek mooy waajur yi mhm. ak ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi te juruñu xale yi nañ leen ànd ñun ñëpp jàpp ci daara ji mhm. ndax xale yi ñun ñëpp ñoo leen bokk jur ki fi yor njaboot ki fi yorul njaboot ñoo ci bokk yem na ñëpp ànd jàpp ci daara ji ñu ngi ñaanal xale yet yàlla na leen yàlla sàmm def xam-xam ci ñoom sëñ Modou yàlla sàmm ko sàmm waajur yi sàmm njaboot gi yëpp yàlla defal ñu tawféex ñu yu bari lool te tal ko te yàgg koo def ci barakatu rasulullah barki seexul xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillah euh, jërëjëf mbokk yi comme euh, ni ci fii ci Palasolo ci daara yi Serigne Souhaibou bu ci ñaareelu édition bi nga xam ne tey ñu ngi ko doon def fii euh, ñu taxaw ak nag kenn koo xamante ni ci yaayi daara ji la bokk muy soxna lii ka saw moom it ngeen gis fi mu def tari boo xam ne tari bu am solo la muy wane ne kon daara ji ni fi mag ñi eh, ni fi gone yi di mag ñi tam noonu la ñu fi ñëwee kon soxna Lika euh, euh, ban message ngay jox saw mbokk yi soxna yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di wax ni que euh, message bi vraiment yaakaar naa ni genn wàll gi waajur yi gisal nañ ko seen bopp waaye bi ci des mooy soññee maanaam xale yi war nañu jàng waaye yaay yi tamit waruñoo des ginnaaw. ndax ku yebal sa doom ci daara mu dem jànge yow it dafa war a fekk nga xam dara ndaxte ñun ñëpp ay jullit lañ te jullit bu nekk lii la war mooy jàng nga xam sa diine di ko gëstu xam yow yaay kan xam kan mooy yeneen ci alayhi salaatu salaam ndax mooy suñu royukaay moom moo tax ñu nekk fi kon lépp lu ñuy def dañ ko ci war a boole alayhi salaatu wa salaam donc maa ngi soññi waajur yi ñëw leen ci sëñ Modou. ku ko oo ne ko damaa bëgg xam sama diine moom da ciy sawar lool ku ko oo ne ko damaa bëgg nga jox ma ay cours sëñ Modou nu ñuy sangoo set sëñ Modou nu ñuy jullee sëñ Modou bu sa julli yàqoo nan nga koy réparer loolu yëpp wax dëgg yàlla moom da ciy sawar donc maa ngi leen di soññi bu baax a baax ndax man ci moom laay rootee maanaam lépp lu ma jaaxal dama koy woone ko oustaz nan laay defee lii oustaz nan laay defee laa mu wax ma sans pour autant ma am ci ay gàcce. parce que diine amul rus diine amul euh, regret lépp loo ci xamul da nga koy laajte parce que laajte moo gën nga def loo xam ne demeewul noonu ngay juum te julli dafa nekk loo xam ne dafa am solo ci euh, ci euh, dundu jullit donc moom moo jiitu donc c'est important nga xam nu ñuy jullee balaa julli di ñëw c'est important nga xam nu ñuy jàppee mais suma mbokku jigéen yi yooyu yëpp dañuy rus di ko laajte ndax yaakaar nañ ne buñ ko laajee dinañ leen ne ah yéen wax dëgg yàlla xamoo leen dara du loolu man mii yor samay doom di leen jàngal mais ba tey man tam maa ngi laajte waa di gëstu ci sama diine pour gën a xam pour gën a mën a jaamu yàlla ndax soo jàngul mënuloo mënuloo xam mënuloo jaamu yàlla correctement te jaamu yàlla moo jiitu suñu dund donc nañ si góorgóorlu bu baax nañu ñu fonkee suñu liggéey nu ñu fonkee suñu mbokk yi nekk Sénégal weer bi dee ñu yónnee leen xaalis julli bi moo jiitu ak jaamu yàlla ba jàng arxuraan arxuraan bi da ngay jéem rek chaque jour saa boo jullee nga jël téere bi nga ubbi ko nga daal di nafar ci ñi nga xamante ni jot nañoo xam parce que réew mi boo toppee liggéey bi topp activité yi arxuraan bi da nga koy daal di fàtte te subhanallah nit ki fàtte diineem fàtte arxuraan donc maa ngi leen di soññi bu baax a baax di leen euh, ñaan. ñu gën a góorlu mu njëkkee ko ci man ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu jàngaat daal suñu diine ndax lu ama ama am solo la waaw mooy tax du ñu réer mooy tax du ñu réer yéen gërëm naa leen sant naa leen sëñ Wadane yàlla na la fi yàlla bàyyi ak mbooleem jullit yàlla defal leen taw tawféex ak tayseer waa di nuyu oustaz sëñ Fallou Sarr nga xamante ni moom am na lu mu def ci sama sama vie moom tamit parce que sama oustaz la su ma jaaxlee dama koy oo laaj ko mu wax ma teg ma ci yoon donc munuma woon wax te gërëmuma sëñ euh, sëñ Saliou Sarr yàlla na ko suñu borom defal jàmm moom tamit tawféex ak tayseer maa ngi jégalu ci kàddu yu gudd yi wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah soxna lii ka jërëjëf kon mbokk yi lii la leen uh, seen télévision Touba Vision indiloon fii ci tari alxuraan eh, ñaareelu édition bi ci Palasolo di leen jox kon dox dir daje ba beneen yoon wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu